Thank you. mbokki yi grand tradipraticien bi di cheikh ibrahim Kaita, Nek jamono bi khalif bu Kaita keita le roi mandeng modi amal une journée de consultation gratuite Manam, bëccëg bo xamne da ngay saytu sa yaram te do fay dara ñu ne ñu koy amal mardi Manam talata bi fanweeri fan ci weeru novembre atum 2021 ma ngay amé ci jacques mbaw arrêt bay diouf ñew leen fekki si bi nga xamne dañuy saytu sa yaram ci walu wergu yaram te do fay dara ci lepp lo am ci ay tawa

ngeen fekki si ki nga xam ne docteur El Cheikh Ibrahima Keïta mi nga xam ne jamono bi moo di actuel xalif de Sunjata Keïta le roi Mandeng journée de consultation gratuite bi lay ñu ngi koy amal ci Jacques Mbaw, arrêt Baye Diouf diggante 9h ci suba jàpp 19h ci ngoon du am le 30 novembre 2021 Jacques Mbaw Arebay Diouf téléphone bi 77 664 92 92 77 664 92 92 kon mbokk képp ku sa aaja nara faju ci wàllu wérgu yaram saytu journée de consultation gratuite le 30 novembre 2021 ci Jacques Mbaou Arebaye Diouf Diouf 9h ci suba jàpp 19h ci ngoon ngeen fekk fi ki nga xam ni moom moo di docteur El Cher Cheikh Ibrahima Keita le grand tradipraticien